Euh, depuis 2013 ñun bu ñu fi ñëwee ku xooloon li ñu fi fekk ak tey da ngay jomm si yàlla xam ne am na liggéey bu bari boo xamee ne nit ñi def nañ ko. parce que ba ñu fiy ñëw euh, fekkuñu fi dara dañu fekk agence boo xamee ne ay bori kese la lu jege ci milliards ci ay dër mënatuñu am chéquier amatul faju am ay arriérés salaire am yu bari yoo xamee ne métti woon na bañ koy bañ bañ ba ñu fiy ñëw waaye yàlla ak euh, président de la République ak orientation yi ñu jox fas jëmee ne industrie ca kanam. à travers l'industrialisation ñu teg ko ci loxo yoo xamee ne xëy na ñu xarañ lañ te gëm bëgg dëkk bi ku ci mel ne la direction générale bi nga xamante tey Momar Jam Momar Ba moo ko jiite ñu liggéey fii liggéey bu am solo bu permettre tey boo fu ñëwee da ngay am fierté xam ne Sénégal vraiment am na ay doom yu yu ko bëgg yu liggéey loolu yëpp ñu koy rafetlu di leen xamal ne quand am nañ ci mbégte te quand bu fekkee yaa ngi liggéey ak nit di ko surveiller di ko jox ay directive di ko wax jaaral nii lii la nga war a def li nga bëgg def day am bes nag nga génn ci kayit yi ñëw ci terrain bi ne dama bëgg xam lan nga def ndax li ñuy wax ak li am dëgg la donc naka noonu ñu ànd ak suñu conseil de surveillance ñoo xool si la nga xamee ne moom mooy moom mooy liggéey bi ñu fiy def mu nekk liggéey bu am maanaa ñu am ci satisfaction di encore encourager direction pour mu dem plus de l'avant pour mun a en tout cas régler li nga xamee mooy le problème de l'emploi en majorité jël ci lu bare bari donc loolu lu am solo la et ñu koy rafetlu ñaareel bi permettre nañu ñu mën xam yan problème moo des parce que fii du ñàkk problème boo xoolee am na lu ñuy wax ne dañu war a génne boo xamee ne dafa war a dem ci tali bi loolu buñ ci liggéeyul ñi nekk fii duñ mën a génn dem Mbour parce que fi ñuy jaar dafay sori problème transport ñu ngi koy réglé am na sax yoo xam ne jéego def nañ ko ci lu mel ni canalisation parce que ndox mi léeg-léeg mu fees donc jéego yu bëri yoo xam ne ñun suñu bopp bu ñu ko constaté nañ ko mën a ànd ak direction générale bi jàppalante si pour que mu mun a dem en avant pour que ñi ñu fiy nekk mun a am jàmm ak salaam mun a liggéey.